ñoo ngi fii ci kër Serigne Bassirou Fall Roxaan ci bis bu màgg bu tedd bi nga xam ne moom lay defal maam Cheikh Ibrahima Fall muy bisum ngërëmam Euh, ñu ngi taxaw ak sunu euh, kilifa euh, sëriñ Mbay Ngiraan xam ngeen ko moom sëriñ Mor Mbay Cissé sëriñ Adama Sarr moom itamit da koo xamante ni bii ñëpp xam nañ ko ci waxtaane maam Cheikh ñoom ñi nag yàgg ci waaru lool yàgg ci waxtaan cosaanu bis bi du ñàkk leen luñ ci mën a indi ak ki nga xamante ni bii itam mooy maam Cheikh Ibrahima Fall ci ngërëm li nga xam ne ku tedd ki gërëm na ko ñu tàllal suñu ko Baye Mbay Ngiraan asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa mbokki jullit di nuy seetaan noo ngi leen di nuyu te di leen siyaara nuyu bi nag noo ngi ciy jiital sayuxu suyooxi sëriñam sëriñ ci jamono jiinu ne di sëriñ Seydi Muxtaar Mbàkke mi nga xaye moo toog ci buntu kër sëriñ Touba xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaakaari jaam ñi gannaaw bu mu toogee ci buntu kër Cheikh Amadou Lamine Baara Mbàkke mu xaadimu rasul ñu du ko ñaanal bu baax Mbàkke naal yi mu naa la liggéeyal maamam ci toolub diine lislaam mu àggale ko lépp te ak moom di siyaare sëriñ Cheikh mi nga xaye moo toog ci buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine gannaaw bi mu toogee ci buntu kër Cheikh Modou Moussa Fall mi njëkk a wutu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ñu di ko ñaanal. Fall mu àggale naal yi nga xam ne naal na ko liggéeyal ko maamam ju tedd ja maam Cheikh Ibrahima Fall ci toolub diine l'islam di toolub Serigne Touba Xaadimu Rasuul ay salaam yaakaar jàmm ñi ak mboolem njabootug Serigne Touba gépp ak mboolem njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di siyaare nag Serigne Bassirou Fall alquran mi nga xam ne. ci moom la yàlla dogale bis bu tedd bu rëy bii mu jikko jëkku koo woote di ko màggal te muy bis boo xam ne war na ñëpp ci àddina war na ñëpp itam ëllëg ndax bis bi day jàmm ju nu am tey ak ëllëg bisu maam Cheikh Ibrahima bii moo nu ko may bis bii sëriñ Touba ne jàkk ak Cheikh Ibrahima Fall ne ko li la taxoon a jóg am nga ko am nga ngërëmal yàlla yàlla gërëm na la yoonant bi gërëm na la ma gërëm la doobu bis di bis boo xam ne la Cheikh Ibrahima doon wut ci Serigne Touba di ngërëmal yàlla ci bis boobu la ko am bis bobu day kenn ku nek war nga xam bis bi moy bisab lan bis bi day moy kilifa bis yep ndax bis bobu su mel nene ne dara du meuna jak bis bi seigne touba Cheikh Ibra mel nene ne su amutoon dara du meuna jak kon nak ak amuk bis bi mo jagal bis yep kon seigne basirou fal alquran ni di wote bis bi ci dekk bu tedd bi wax komom yalla day duñ man ñaanal ko mom ak mbolem njabotu Cheikh Ibrahima Fall gépp ñu yag taxawé bis bi ak mboolem talibé yëpp ndax bis bi bisum ngeureum la te kiko geureum ku yalla geureum la yonent bi geureum ko muy Serigne Touba khadim Rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam yakari yaakaari motax Cheikh Ibra tafu ci mom di wut ngeureum yoyu jaaré ko ci mom muy buntam ci yalla di buntam ci Rasuulillaahi sallallahu alaihi wasallam té te man nak dana faral di wax man bay ngiran mom serigne Mor may sisi dana faral di wax nan serigne Touba ben talibé la am muy mam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridi ñi ci dess ñepp taalibe Cheikh Ibra lañ ndax Cheikh Ibra mooy jëmm ji nga xay ku ko royul doo dem te koy roy ku ne nag mooy sa kilifa kon bés bi bés buñ war a fonk la te yàlla dogal na bis bi dellusiwaat dëppoo ak bés ba ko sëñ Touba defee woon ndax talaata mooy bisu Cheikh Ibra talaata la sëñ Touba gërëmoon Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina talaata la tey jii bés bi talaata la dëppoon talaata la sëñ Touba jëkk a màggal. màggal ak Touba gii bisab talaata la ko sëñ Touba jëkk def ci njaarim ren si siwaat na di talaata kon at mii lu mat a seet la yéen eh, ñiy jàngatkat yi nañ jàngat yéen di talaata yi talaata jawoon ci Daaru Salaam mooy talaata yi tey jii ci jannatu Mahwa ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina ci kër sëñ Bassirou Fall waaye talaata jawoon ci njaarim sëñ Touba jëkk ca eh, def màggal tuuba Touba màggal gi mooy talaata yi màggal gii nu génn tey doon bisub talaata. muy yenti talaata yi kon talaata mooy bisu Cheikh Ibra Fall te Sëriñ Tuubaa daa woon Cheikh Ibra ne ko talaata daa ñëw fi man di ma jàmbat tawat ma boppam ne dañ koo gaafal ba nangu wuñoo def ci moom dara ne ko rafaatal naa la talaata talaata jooje Cheikh Ibra ci la def euh, lël boo xam ne mat na ñetti téeméeri njulli mu dugalee néegab góor ci talaata kon talaata mooy bisu Cheikh Ibra kon Cheikh Ibra daf noo delluwaat andil nu yent talaata yi ja ko sëñ Touba gërëme moo jot tey jii ji sëñ Touba tàmbalee màggal gi nga xaye moom la ñuy wax màggal ak Touba moo del siwaat ren ji kon nan ko fonkaat bis bi nag bis boo xam ne sun defaruk tey ak sun defaruk ëllëg loolu rek moom lañ ciy jële noo ngi ñaan nag yàlla ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall euh, euh, sunu borom bàyyi fi sëñ Bassirou Fall alquran mii ak njabootu Cheikh Ibrahima gi mu yàgg woote bis bii mu yàgg ko teewe ci barkeb Serigne Touba Khadimou Rassoul barki bam Cheikh Ibrahima Fall Babul muridin kon alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bismillahirrahmanirrahim rahmaani salli bi taslimin ala hayni nayim wa sayyidil kawnin bas nayim. assalamu alaykum bokki julidi bokki talibi bokki toba jannatu Mahwa bokki keur Cheikh Rafal ñi ngi nuyu mbolo mi. di nuyu noonu ko sëñ mbay Mbaye Ngaylaan waxee Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xam ne mooy sëñ Tuubaa ci kaw suuf ak sëñ Cheikh Jëm mi nga xam ne mooy sarafaal ci kaw suuf waaye di nuyu seen jëwriñ ju màgg ji di sëñ Bass alxuraan ak mboolem sëti sëñ Tuubaa yeeg sëti Cheikh Rafaal yi nga xam ni ñoo tax bis bi am ci ndigalu Alaaji Baara waaye bis bi noonu ko sëñ Mbaye Ngiraan waxee noonu rek la bis bi su baaxul woon benn bis lu baax mooy sangu bis yi. kañ doon wut ci moom ngërëmul yàlla ak ka ko wut ci moom ngërëmul yàlla su ko sëñ Tuubaa amul woon Cheikh Ibra Fall amu ko ku wuti ngërëmul yàlla doo ko am ndax ñoom ñoo yor lii kii yey néeg bi kii yey caabi ji Cheikh Ibra mooy yoonu murit sëñ Bambaay dëkk bi sëñ Amdi Fall dani moom sëñ Sërif Asan dani yoon wi leer na xàll nañ ko wulli nañ ko amul pak amul kàmb amul luy fàddee amul luy dëkk bi lewet na ku ci yegg sa aajo faju kon ku gën ci gisul daa waaxu wut waaye dëkk bi sotti na loolu nag mooy lii tey eh, bis bi Baye Mor Ndiaye tomb del mooy ki wax fukki fan yeeg juróom-ñaar biñ ko gëstoo ñëw ci bés sëñ bas alxuraan Adama ñang wakaana kan Lamp Ndour Touba Fall Ndiak Samb Moustapha Guèye Ibrahima Boy ablay fay Cheikh Balla Joxaane Matar badian khaban sal fallu sal ñi ño doon dox bis bi ak mudu Gueye ca gaay ngaay waye lamp ko de ndur la tudon waye mam Fatim mbake mum sëñ Abdou Latif moom sëñ Moussa Bassirou moo ko tuddee lamp nduur dañuy ci Rafal ba yag mu daanu dañ mango gi xobi ak doom wad mu ne ko ci for nga lek ci xobi dër jël bi xëy saab ñu baxal loolu ci cin séddale ko nit ñi pare kaasi ataaya soo su ne ko tuddi naa la Lamp Fall tey ndax jël bii ngay daanu dañ garab gi mu ruus te faatu woo dara jotu la ku yem ku Seera Fall ci sub dënn boo dañee garab faatu kon Seera Fall mooy défense bu luy gaañee lu ne kon Seera Fall yi seen défense bis boobu biñ demee ci Baye Mor Ndiaye tomb del laaj ko ko ni ko dañoo laaj bis bi Seera Fall amee ngërëm mu ne su ngeen dee ay gone it mag ñu yebal ngeen. fan la juroom ñaar waye xawma bis bu mu tombel waye nañ dem ci Baye mon jaay dang ma nga ci dang jaay ga ta Mbaba Garaas ta gad banu ja yegge mu ne duma leen ko wax te neexalu leen keul bi bii sëñ joxon Cheikh rafa simal ko ci ciere da tojaatoo bu mënut a def dal su ngeen ko ŋànkee ci xaalis ma wax leen bis bi ñu dem yobbu keul bi alkati Bamba mo ci fere fanweeri juune juroom ñu ŋànk ko xaalis ba bo ci simé ciere du tuuru bo ci defé dox du tuuru ndoru ñu ci bay tombe mu and ak mom dem ci Baye mon Ndiaye dang wax ko ko mu fukk fukki fan ak juróom-ñaar ci gàmmo la ak bisu talata asman sen mu jox gànnaay sey ma numbe ci fi seigne bi teud fi la ñuy Cheikh Rafal yobbu ko Darou salam fa lañ ko gërëmee bis bobu seigne ma numbe fi bu teud seigne bi teud tëdd kamil ci seigne ma numbe dess bay at mu jëk ma ñetti téem ñeenti téeméeri sawar ak juroom fukk tolloog as ni mal wakilu sëñ taa la ñetti téeméer yi bàyyi ko téeméer beeg juróom fukk ni ko yaa donga yi loolu kon ñu fa neen booloo lañu euh, bis boobu maam Cheikh suñ taay yóbbu ko Daaru teg ko ca kaw lal ba copp ci suuf yenu fulku bokk kambil daal ni cay mën a Ibra Faal yaa tax ndaw romb ma doon jigéen ba këram may romb yaa tax may asamaan ñëpp di suuf yaa tax ñëpp di bëy ma di gëléem yaa tax ñëpp fab seen alal jox ma ko boole ci guy coolor di jooy di ko jox tubaab yi léegi ñetti dërëm mu të ko ñu booy fanweeri dërëm jox ma boole ci ñaar fukk juróom-ñetti jox ma boole ci ñaar dërëm yi yul faal tey man ak yow waaye ngërëmal yàlla bàyyi ko na ci yàlla bàyyi ci ko ci rasulaay ñëw ci jibril ñëw ci saa jëmm suuxal naa ko sa jëmm ji ku amati ngërëmal yàlla dara roy wala mu ko ci ku mel ni man wala mu ko xam ne dama ko def li ma ko def te diwum diw dégg la borom diwoo la ko diw yow nag Cheikh Fall li ma diwoo ci yàlla diw naa la ko man sëñ Tuubaa bis boobu su ñoom sutu nee boobu mooy bii suñ gaawaan tëdd ak doom yi muy jàng alxuraan bu suñ caa rombee ni ko nan julli ji benn bis mu xëy maraaxib suñ caa ñëw romb ko bañ koo ni ko nan julli ji ba mu julli jee ba ñëw mu ne ko man de mbàkke dama tiit ndax bu ñu daan julli ji nag ma naan nan julli ji tey nag néewoo ma nan julli mu ne ko bi nga nee ci alxuraan da ngaa nee ci lu julli bi nga nee ci xësid da ngaa yem da ngaa nekk ci lu gën julli sëñ su doxal doxal maraaxib bëri ci wajal bii nas mi yaa faw ko saw mi waxay daa min maanaa ci law mi mun ko benn rakk mun loolu kon maraaxib moo gën julli waxtu yi juróom yi nga julli moo tax ma bàyyi ci loolu dem julli ci ba ñëw bokk yow yoolub julli bi bokk yow yoolub xasida gi Serapha ci nii boobu la toog ca kawlal ba gàddu sémmiñ bi baag bi goj bi këll bi téeñ bi sëñ taa cóob fi suuf mu ni cey mën ak yàlla Ibra Fall mii Cheikh Fall ni ko ah Fall Mbàkke fii nga ma teg ne ci suuf yaa ngi mel ni maa ngi mel ni néew bu ne ci kaw ak jaat jëm ci kër Bambeel te xamul lu fo fa def mu ni ko déedéet ngërëmal yàlla daay ñëw jóge ci yàlla ñëw ci yow ma di la ko jotal soo fi jógee foo dajee koo dajeel moom la ku dajee ak yow moom la Cheikh Fall ni gees ni ko kon sëñ Bamba luy pexe mu ne ko nga dem seeti foo dëkk mu ne ko foo may dëkk loo dëkk kër gi du taxaw ci la bokk mun kër gi gëlëk ci la bokk mun ko Ibra Faal mun ko Mbàkke mun ko soo dee dëkk nooy dëkke ak nooy sancab dëkk muy noo ma sancale ak noo ma dëkkale mun ko na nga dem ci suuf su tàlli joor ga nooy nepp bu tawee du taa nii aw xurte néewi jàngi nga xool ba njëlbeen géeg mujj baax digg bi baax ku fa judd baax ku fa dee dem àjjana ku fuut yàlla am ko ku wut wërsëg am ko na nga ci boobu dëkk Cheikh Fall ni ko nooma sañcale mu ne ko soo ko sañcee ne buntu kër gi jublu penku ku ñëw dal sa yow nga dalal ko ci boobu salum mu indi joor bu foofu feesee nga dalal ci baabu gànnaar su foofu feesee nga dalal ci sa penku su foofu feesee nga boot ci sa ginnaaw ay gàtt kat ku leen bëgg a sàmm da nga leen di féete ginnaaw su boobaa bul xeeb soxlaas kenn. bul xeeb kenn bul ñaawal kenn lu ñaaw bi si jow defaral raw leen taxaw nege ëpp doole doon noggutoo bari njëriñ gi leen njëriñ te doo ko tiitaroo xam seen sikk maandu ci ku yàlla bi gi nga ko jàmm di nga yéene su boo ko bootee mbooloo ne ca kanamu mbooloo ma yéen faal doxal Cheikh Fall ni bëri mun ko nooy takkee soxna mun ko noo ma takkale soxna mun ko na nga dem takk sa jarbaatu bàyyi soo ci juree doom jur sa bopp jur sa askanu kër baay takkal sa doomi ndey boo ci doom jur sa bopp sa néeg ndey takal dekk ju yag nga xol ko ba du wañi ko te du wañi nga takk ko so ci juro dom jur si bopp jur saw dekk way ku jot fo jot takke lo jur fab lo gis jël muy dekk bi nu taxaw muy jànnatu gi waaw waaw waaw lim ci wax doyna sekk du jaayil du gune te ma ko yar ma nga ko jur sëñ Mor mooy Cissé dëkk na dëkk na bay inspecteur yoon wi ku yegg ci yàlla mu xam ko sëriñ boo mën a jébbalu cànn boo ci muritoo ba yegg ci yàlla boo ñëwee jox loxo sëñ Mor mooy Cissé foo yem ci yàlla da koy xam soo matee wàcc mu ne wàcceel bis biñ ko jëkkee woote ngaay lañ ko woo fa nattan mu duggee ni attanuma ko ñu indi ko taawaan kër Lamp yaar yaari ginaar lañ ci jëkkër ay yaayam ma ko joxe moom Lamp Ndour ca déwén sa Touba Fall ci joxe am xar. Talla Fall saakoob ceeb Ndiak Samb bëri góob cere Ndiab Moussa Samb bëri góob cere Abdou Tall ci sëñ Cupir bëri cere Talla Gueye ah Talla moo ci jëkk saa joxe saakoob ceeb xoolal saara ci jëkk yëpp a joxe aw nag ca déwén suñu joxe yaari nag ci déwén su mu ànd ak gëléem ca waaw maa ngi ñëw suñu baawo waaw waaw boole Sarr moo indi aw nag ci première ca déwén suñu doole ci weneen nag ca déwén si yow yow yow nan lamp baaw doole ñëw indiwaat ñetteelu nag ba soxna su sant Jóob dëkk Dakar togg ñaari bërigoy ceeb indi ko bamba ji dox juróom ñaareelu at ba ca la seen bés alxuraan indi mu bu mu yegg solal ko lamp nduur mbubum mbubum ñegg mu ñu daamine baat ba mu ñëw solal ko lamp gajal da gi féete ma ginnaaw maa doon diba dëbbee Jóob Ibrahima Boy Ablaye fay mu Gueye Maawa Jaañ ak si karkatu Moussa Samb ak ñaar Samb ak waa këram xiin yi jaldeer kër sëñ Morja ñooma dar ñoom fukki xiin la ñu ak ñaar ak ñeenti sabar fukki xiin ak ñaar ak ñeenti sabar ak mbëng-mbëng ak ganas ak tongoni ak ak ndeer ak ak lam ak jiin ñoo ñoo ñu fëgg dënd yi ñu sàqar bi man sikar sikar si ba noppi yi wi nit ñi waxtaanal leen bi sëñ bas solalee lamp dur mbumi lamp daanu am lu ñu ruumandaat ci biir ma daanu man sikar si jolle gaa yi aw ma ne cell teel na roof bi mu demee ba dellusiwaat ma roof ko mam Fatim Mbàkke ma ma àkk ko ni ko dama doon seet ko baax ndeke booba yawa waaw daal ni ko sol nga gaabu saabu ngëneel waaye gàkk jaaxul la yaa ma doy dafa tiis falal góor ñi ñibbi loolu laa waxoon Serif Assane mu ne ma ah Adama ma ne Fall mu ne ah mag du dee ci nen gu ne di sànni doj waaw mag du nent ay nen kat gone di sax new doj nga ne ma lan ma ne ko ma ne ko faal yow Serif Assane kon jëgg bàyyi jee faal nga sabu ngëneel gàkk jaaxalu la si kuut doy dafa ftis faral góor ñiru ñibbi bi ne ah sama kala gi juróom ñaareelu asamaan ca lañ ma kala tabal ma ci jorog bawol geeg kajoor kaala yi làq cuut Sadio laa yàgg na ci jaar alom laa sama ndëpp laa indale caaya jii ma sol ëpp lu ku sant fal ma ku sant neneen kenn musuma dimbali ndimo Serif asan a ngok kenn musu ko dimbali moom Cheikh Rafal du bokk te gaa yi sëñ Mbaye ngi naan Cheikh Rafal dañ ku jébbalu am diine ku dégg ndigal am xam-xam ku jëfandikoo ndigal di kitaabulaay daane yett ku ko bëgg ci waxtaan doo wax dëgg gaa yi làmb poos jox la nga bëgg cib taalibe mais nag kenn di ko léebu doo wax dëgg daane juróomi farata la waxtaanam xam fi ngay waxee xam ñi ngay waxal xam li ngay wax mën a wax ñu wax loola waaye yow la ñu ne ku ko jënd loo ci doon dos ab daf nga doon nit asalaamaaleykum wa rahmatullah